xale bi xew ci jamono xale zénith bi xale suba teel bi xale ndaanaan kulli fadlin bi xale bi nga xam ni chaque lendemain korité mu yëngal Kaolack xale bi nga xam ni chaque lendemain korité mu corote Kaolack ànd ceeg ASC super étoile Ibou Bambara le grand promoteur Ibou Bambara la grand homme Ibou Bambara le meilleur di ko fa yóbbu chaque année mu yëngal fële ca Kaolack bi yoon nag tey la soire bi waroon a doon tey ci jeudi bi ñu ne lendemain korité waaye gars yi xam nga ni dañ ko yóbbu ba suba ci àjjuma ji muy sur lendemain korité Sidi Diop war a ñëw yëngal biir Kaolack ndax dañoo bëgg a àdduna bépp ak waa Kaolack waas bépp waajal xam ne Sidi Diop da koy corete man Ketchup takku naa ba dëgër maa ngi ñëw yëngal Kaolack yëngal foofu corote ko bazarde ko buum ko ñuxut ko gars yi gars yi xam ni xolal ñun waa Dakar sa ne bu ñu ñëwee Kaolack dañu koy yëngal du yomb incha allahu rabbi Sidi Diop ak Ibou Bambara ak ASC super étoile biir Kaolack suba nag sur lendemain bi la suba ci àjjuma ji lañuy ñuy yëngal Kaolack fële ca kër de du yomb